asalaamualeykum maa ngi leen di siyaare seen taalibe seen ndongo Seydina Jibril Kawsara Muhammad yéena dellu ak yéen ci yóbbalu bés bi maa ngi lay digal foo toll di gërëm yàlla bañ koo xarab moo xam danga toll ci tiis tiis am danga tollu ci ak jàppandik xéwal foo toll rekk lam dogal ci yow gërëm ko foo rekk lam dogal ci yow gërëm ko ñoo ngi ko toxalee nag ci téere buñ naan Majmahun Nurayni sëriñ Touba wax ko fa jërëjëfe sëriñ Touba maam Cheikh Ibra